hadiitu anil mawla As-Samadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wooteem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu naafi' di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm As-Samadiyya TV di seen télévision bu mag bi disponible na ci TNT IPTV Rookie Play Seetaan Média ak ci mbooleem plateforme yi ak réseaux sociaux yi 24 TV daal mooy kër gi leen di woon dëgg ak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 ñoom ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha sunu borom yàggal ko loolu te wéral ko waaye loolu lañ koy ñaanale borom ak bii nu nekk mooy ko toog toogaay borom daal bu mokk seen sëriñ Bassirou Anta Niang sunu borom ko loolu te wéral ko yi tey jii nag noo ngi fii ci jumaay moo Muxti ci mbooloo mi nga xam ni mbooloo mu am solo la moo xam ni néewaa na ku nekk ci biir réew wala bitim réew te gisoo mbooloo mi waaye xamoo it mbooloo mi ngir seen njëriñ lu am solo li nga xam ni waxtu wu nekk ñu ngi koy indi ci biir adduna bi rawatina ci biir réew mi muy mbooloo mi nga xam ne moom la ñuy wax alwafa alwafa nag mbokk yi tey jii lañ ci bëgg a gën a dañ kumpa ngir képp koo xam yaa ngi seetaan sunu jotaay bi dootoo am benn kumpa ci mbooloo mi nga xam ne mooy alwafa euh, ñu seq kooku Serigne Mouhamed Mbacké mu yor banqaas bu am solo ci biir mbooloo mi nga xam ne mooy alwafa te mooy communication euh, Serigne Mouhamed kon ginnaaw buñ la bàyyee ak mbokk yi nga nuyoo ak ñoom ba noppi ñu door a nag seq waxtaan bu am solo yi nga xam ne ni ma ko waxee léegi rek mooy bëgg nañ képp ku seetaan dootu am benn kumpa ci mbooloo mu tëdd bi nga xam ne mooy Al Wafa ñu bàyyi la ñu nuyoo ba ko seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa ñu ngi lay yëpp ñu jàkkaarloo ñoom li ñu seetaan di jiital ci nuyoo bi sëñ Mouhamadou Mountakha ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool te wéral ko ay naalam mu def ci lu kawe njortam moom lañ koy ñaanal sëñ Basiiru ñi nga xam ne moo fi nekkal borom Daaru Muxti moom barab bi ñu nekk naal yi mu ci am ak yeneen yi mu am ci liggéey borom Daaru Muxti bi yëpp yàlla na ko ci yàlla defal mu def ci lu kawe njortam di ñëpp rawatina télévision As-Samadiyya buñ ko waxee sëñ Abdou Samad moom bi kilifa yabal leen fi dañuy jub koor gi la joxe woon ndigal ne nañ fi indi équipe boo xam ne dañuy ànd ak liggéey bi ba mu yegg loolu nag xam nañ pas-pasam ak yéeneem ci lépp luy liggéeyal sëriñ bi ak lépp luy jëmale kanam liggéeyu sëriñ bi di ko gën a yaatal loolu moo waral ngeen dox jéego yi ba ñëw ba macha allah jërëjëf Serigne Mouhamed Mbacke macha allah noonu nga ko waxee rek xam ngeen ni tey télévision As-Samadiyya mooy fépp loo koo xam ne lu baax nekk na fa rek ñu fexe ba loola ñu fexe leen a walale ak ñoom loolu waral it ñu ñëw fii nga xamante ni mooy Daaru Muxti fas yéene leen a xamale ak ak Wafa ci seen télévision As-Samadiyya kon Serigne Mouhamed dama lay bàyyi rek nga daal ñu ñëwal ci suñu delluñu laaj mooy tey fii eh, seetaan su la gën a xam lan mooy Al Wafa maanaam tur bi fu mu jógee kañ nga sosu ak lu ko sos ak lan moo ko tax a ana lan nga muy andi. waaw suñ ko soxlaa kay mu association bu Wafa ab fondation la bu nekk fii ci Darou Mouhty li ko tax a jóg muy kuréel bi muy ay yëngatoom jëm mooy tasaare xam-xam xam-xam yëpp nag bàyyi benn lépp luy xam-xam bu doomu aadama mën a jëriñoo moo xam ci diina ji mën a bokk ci dundinam ba tax dundinam man a yéwén xam-xam boobu Alwafa yitteel na ak culture islamique maanaam aaday lislaam yi am njàngaleem aw doxalinam ndax yi ñuy waxtaane yëpp boo ko xoolee lépp ci biir lislaam la dugg ndax jullit bi lépp lu tax ak dundam jag rek bu ko lislaam nangoo rek loola da koo war a boole ci la war a xam ginnaaw xam-xam bi bokk na ci ay yëngatoom dimbale ñi nga xam ne ñoo aaja ndimbal ñi nga xam ne yàlla daa dogal taxu leen a am doole bokk ci yittey kuréel gi ak ab liggéeyam mooy di leen dimbale ak di leen taxaw bu dee tur bi nag ak tàmbali bi liggéey bi man nañ ne bu dee tàmbali bi atum 2003 lañ njëkk a def waxtaan yi waaye jamono yooyu ci biir jumaa ji lañ ko daan defee nii rek waaye ñu dëkk ci dëkk bi la woon daawut yam daawut daawuñu ko yaatal fenn tamit waxtaankat yi yëpp mooy ñi nga xam ne ñoo sos kuréel bi di ay ay boro ay ndaw yoo xam ne xam-xam yitteel na leen ñu jàng ko ba noppi gis ne war nañ cee jariñ seen i eh, jullit ñëpp ñu taxawal lu mel noonu tàmbalee ko atum 2003 dañ demee nag ba nga xam ne egg nañ atum 2007 ci lañ ko nos nag def ko nii ñu ko def muy doon ak kuréel ñu dem ci booba ki fi nekkal borom daarul moo ñun suñu Seex Xaadim di ñaan suñu borom mu dolli ko ay gërëm mu jox leen ndigal ñu dem ca sëriñ Basiir Anta Ñaŋ ñi fi nekk ngir mu jox leen aw tur ginnaaw sëñ Basiir Anta moo leen yebal ci suñu Abdu Rahmaan Mbàkke ñu xam yàlla yàlla gën koo dolli ay gërëm fa mu nekk moo leen jox ci muassasatul Wafa al Wafa nag lañ ca teg mooy fi ñu xooxal iman matal sa ak ngëm yàlla loolu lay mooy kuréel bi 2007 googu nag lañ ko nos yaatal ko tàmbali cee woo ñu jóge feneen di ci woo ñëpp nag muy borom xam-xam yëpp ñu bokk ci yoonu murit ak ñu bokk ci yeneen tarixa ak ñi nga xam ne ci wàllu bu ne lañu yëngatu ci wàllu yëpp ñu ko waxee léegi wàllu économie maanaam environnement astronomie lépp rek ni mu ko tënkee léegi ma lépp luy xam-xam bu am njëriñ rek boo xam ne lislaam war na koo soxla woo rek ak ba ci suñu dundinu bopp wi sax yéen yëpp social lu mu ci mën a doon diggante ci kër yeeg yëpp alwaxaana ci wut tey itam ci tànn ñi nga xam ne ca loola la ñu yëngatu mu doon seen métier bañ ci bañ dalee jàng ba léegi di ko jàng ñenn ñi liggéey ci ba retraite ñu andi leen ngir ñu toog ak ñun ci jataay bi euh, génn seen xam-xam ak expérience boobee ñu ci am leeral ko nit ñi ndax léeg-léeg bëri na loo xam ne da lay jege mu doon xam-xam boo xam ne day mel ne doon toon lu ñu la war a jàngal waaye buñ ko waxee rek da ngay gis nit ñi ñu ko yittewoo ak ñi nga xamee ne noonu la leen di jariñu ko saasa moo la nag moo waral wàllu yëpp la ñuy waxtaane wàllu boo mën a boo xalaat rek koo xam ne lislaam nangu na ko tam ànd ci teggin te te mën a jariñ nit ab jullit sax ko maanaam alofa dinañ ko def ay waxtaan boole koog nag lépp ñu teg ko ci bañ a laal pas-pasu kenn wala lu kenn wute kenn li ñuy def mooy loo xam ne thèmes yi sax comme ni ma ko waxee dañuy fexe ba yëpp doon yoo xam ne liñ ci liñ ci liñ lañ cay waxtaane nit bi ca man a wax xam na luy laal kenn wala luy tax kenn gis ci boppam xam si tënk daal loolu mooy toox ñu kon loolu dana wane ni kon al wafa am na ay banqaas yu bare bari yoo xam ne eh, moo lëkkale al wafa nga xam eh, am ñoo xam ne comme li nga yore communication ñoom it ñoo yor wàllu relation bi nga xamante ni mooy tax eh, waxtaan kat bi buñ soxla mën a mën a mën a ñëw ndax gis nañ ko macha allah day mel noonu nga ko waxee mbooleem xeet sànni xam-xam yëpp rek day mel loolu nag ngeen koy far waaw bu dee Al Wafa kuréel gi ni muy doxe kuréel la gu yaatal ay buntam am ay commission ni ñu ko waxee yoo xam ne ñoom ñooy euh, joor liggéey bi commission yi ni ñu ko waxee commission bi ci jiitu mooy am na bu ñuy wax xiyaada nga xam ne ñoom ñooy bokk toog jël dogal yi ak nga xamee ne noonu la kuréel bi war a doxee ginnaaw bi am na ay commission ci biir bi ci njëkk mooy culture am na ñoom ñooy waajal waxtaan yi waxtaan laa xalaat thème yi nga xam ne jamono laaj na ko ñu bind ñu tànn ko suñ nattee seet boroom xam-xam yi nga xam ne jàpp nañu yelloo nañ ñu jéem a jokkoo ñoom wala ñu dem ci ñoom teel a waxtaan ak ñoom balaa koor gi yegg si ñu teel a waajal yëgal leen thème bu ñu bëgg ñu teel koo waajal ngir bu koor gi ñëwee ñu mën a ñëw su ñooñu jàllee am nañ ñi nga xam ne ñoo yor wàllu jataay bii ñu toog commission organisation jataay bii nga xam ne ñi nga gis jumtukaay yi ñu si gis yëpp ñu ngi lépp lu aju si jataay bi lu tax tàngoor bi du méttee lépp rek commission booba ñoom ñoo yor wàllu woowu ak loolu ak commission la ci biir Al Wafa ginnaaw bu biir commission bi ba léegi am na commission boo xam ne mooy commission technique mooy ñi nga gis ñu fexe ba ñu fi nekkul ci jataay bi man cee jot ginnaaw bi lu ñuy gis ak lu ñuy dégg suñ noppee nag am na commission boo xam ne mooy communication mooy ñun bi ñu yor nga xam ne buñ noppee ci loolu lépp dem di ñëw ba toog ci jataay waa technique def seen liggéey buñ sotti ñun lañ koy jox ngir ñu tasaare ko ci àdduna bi fu ko waay mën a jot foofu nag danañ ci fexe ba lu ko waay man a jot rek ak noo ko bëggee rek ñu fexe ko ba nga jote ko noonu bu dee ci yeneen jumtukaay yi xam dañuy tasaare dañ leen di laaj ni ngeen ko bëgg a jot moo xam am na bu dee direct la am nañu lien bu ñu defar boo xam ne xañ ñu yëngu ci wàll woowu xam nañ ne euh, kuñ ko yónnee rek da nga mën a da ko mën a jël direct benn signal bu ñëpp la ñuy def noonu la ñuy jëflante bu dee télévision yi bu dee rajo yi ka saalika bu dee euh, site internet yi ak seen YouTube yi yëpp noonu loolu yëpp ñu si gën a la loxo képp koo xam ne daal liggéey bii Alwafa di def gis nga ne bëgg nga koo jàllal lenn rek lañ ko sàkku ci yow mooy nga woo ñu yëgal ñu ñu laaj la noo ko bëgg ak noo bëggee ñu yónnee la la ca des lépp Alwafa def na ko ba noppi euh, yónnee gi nga jàllal rek moom moom moom moom moom lañ la ci sant képp koo ci xam ne am nga ci yitte boo jokkoo kuréel gi rek loola gën a jàppandi lool loolu mooy commission communication ginnaaw bi am na commission boo xam ne ñooy organisation bu mag ci boppam mooy wàllu xewal yi ñu def ndax Alwafa li ma wax léegi ci ci ci ci dimbale ñi nga xam ne ñooy aajan dimbal loolu daa bokk ci ay liggéeyam waxam naa ko ci jël benn ñi ngay gis muy xewal yi muy ndogu yi ñu fi def am na commission bu am solo bu am doole boo xam ne ñoo koy def ndax liggéey bu rëy la daanaka mën nga ne waxtu lu topp tisbaar rek lañuy ñuy ñëw commencé seen liggéey ñu ngi fi xewal yooyu yëpp kon lu nit di soxla rek lu ci ëpp danañ fexe bam am fi ngir nga mel na yaa nga sa kër loolu nag commission organisation la bokkut a beneen sous commission bi nga xam ne ko toppatoo fexe ba setal jataay bi commission bi nga yi ñooy organisation am na beneen commission boo xam ne euh, wàllu laaj fiq yi lañ yor képp ku fi yónnee laaj fiq ñoo koy saytu yónnee ko ci borom xam-xam ne jàpp ñu saytu ko ba indi laaj yi lañ ca tontu ñu ja ñu ko am na it émission boo xam ne moo yor wàllu xewal yi ñu fi indi ñuy finance nga xam ne mboolem yi ñuy wax day laaj dépense yu bëri ndax lu ci nekk rek maanaam ay finance a koy def am na commission boo xam ne ñoo yor wàllu finance am na it commission boo xam ne ñoo yor wàllu xasida ñoom dañuy def rek mooy suñ toll di jàng ay limu xasida alxuraan di ñaanal jullit ñi ak kuréelu Al Wafa ngir yàlla gën leen a ci lépp luy ndox di ko gën a jëmale kanam te liggéey bi lépp doon doo xam ne dëppoo mbiram suñu borom saytaane bañ ci am benn yoon am naa ne waaw loolu mooy ni Al Wafa di organisé macha allah am na solo macha mel na ni beneen laaj bi nga xam ne moom laa doon nit Eh, day mel ni laaj boobu ñëw nga ci te mooy comme Al Wafa ab muassasa la boo xam ne bu am solo eh, te bi ñu ñëwee fekk nañ ci wàllu espoir muy wàllu ndogu bi mhm. ak yëpp doon laaj kon wàllu financement boobu fan la doon jóge mhm. ndax Al Wafa ñoom seen biir dañuy cotiser wala ndax dañoo ubbi bunt boo xamante ni mhm. maanaam bunt képp koo xam ne bëgg naa def ci biir waaw bu dee ci wàllu woowu moom eh, ni ñu ko waxee rek xam nga jullit ñi rawatina senegal lépp lañ gis lu baax loo xam ne gis nañ ni lii moom liggéeyu yàlla la dañ koy taxaw loolu moo waral ay kilifa ak ay ñoo xam ne xam na seen doole bëriwul ñooñu ñoo def kenn ku dégg liggéey bi rek seet la nga xam ne moom la jàpp ne lii kat war nga yëm ne war nga cee dugal sa loxo nga andi ko la ñuy boole loolu mooy doxal liggéey bi waaye doonu xam ne ay cotisation yoo xam ne ñu ci bokk ñoom ñoo koy def wala wala loolu la bu amee it la ci am mooy kilifa yi ci bokk yëm nañ ne li ñu fi def liggéey bi yàlla la ñu war caa dugal seen loxo waaye defuñu ko sax ñëpp dañoo bokk ci aloofa seet lu mu jaayantee ci liggéey bi loo xam ne xam ne lu koy doxal rawatina mbirum iftaar mi nga wax xam ne kenn xamut yool bi nekk ci dogal ab jullit ñu toll noonu nag la ñuy def ci ñëpp ci ay ñoo xam ne yàlla may na leen teraanga bu bëri ñoo am na ñoo xam ne ci ci jàppale ak ñu jot am na ñeneen ñoo xam ne it la seen doole tollool mu toll rek loolu it yëngut fenn ndax yëngut rek ci génne xaalis waaw kay yëngut rek xaalis joxe waaye tey lépp loo xam ne dañ koy soxla fii rek lu mu mën a doon butéelum ndox lu mu mën a doon loo xam ne gis nga ne ab jullit mën na koo soxla ci buy dog su la neexee nga andi ko ñu defal la ko ci liggéey bi mm. waaw noonu daal lañ koy dañ koy doxale macha allah am na solo nga xam ne kon euh, ci waajtaayu noonu nga ko waxee euh, day mel ni kon ñaar fukki fan ak juróom-benn yi nga xam ne Al Wafa dana ko taxaw yëpp ci atum ren bi mel na ne kon taxawu ngeen ko laataa koor gi feeñ. waaw macha allah am na solo bala moo jub si. Mhm. nañuy a waajal loolu lépp ñaar fukki waxtaankat ak juróom-benn yi. Mhm. teel a waxtaan ak ñoom mhm. nekk ñu xamal la tam ba nga war a waxtaanee. nga teel koo waajal. buñ ci buñ duggee ci weer bi it wala buñ ko jegee ñu laaj la bis ba ngay a nga tànn bis ba nga xam ne te ngay amul fi bi mu confirmé ba nga xamee ne kooka bu amut gant lu rëy rëy du mën a sopp dañ boo xam ne xam ne da nga ci am mhm. wax yéeneem ba bis ba buñ génnee programme mhm. su amul gant lu mag a mag lu ci ëpp li li ñu yàlla defal sutura mooy li ñu amul sopp bu bëriwul loolu mooy waral par semaine rek la ñuy programme Euh, kon mu ngi noonu macha macha allah mu asatu anul wafa mi ngi noonu di mbooloo moo xam ne mbokk yi mu leen ko waxee yaakaar naa mbooloo moo barkeel la ndax liggéey bi bañ ko tàmbalee ak léegi yàgg na ay thèmes yu am solo lañu fi abordé yoo xam ne yaakaar naa ni Euh, mbokk jurit yi nga xam ne ñu ngi seetaan tey télévision As-Samadiyya xam nañ ni yàgg nañoo jariñoo ci thème yu am solo yoo xam ne dañ koy jariñoo fii ci Al Wafa te dégg ngeen noonu nga xam ne noonu la tàmbalee am solo bi nga xam ne na ci nga xam ne kon ni mu ko waxee rek ñaari aspect yi diine bi yoo xam ne bu ci nekk mat naa bàyyi xel mais benn bi mooy euh, barab la boo xam ni ñu ngi koy waxee ginnaaw boo xam ne waxtaan wi am na ko ci la dog bi fekk mboolem ñi fi nekk kon képp koo xam ne bëgg naa def bu baax buntu boobu moom tëjuwut xam naa du ñàkk bu ñu xoolee ci écran yi alwafa yi danañ gis numéro yoo xam ne wala sëriñ bi dana joxe numéro boo xam ne képp koo xam ne bëgg naa ji aw jiw ci liggéey bu tedd bii nga xam ne moom la ñuy def fii ci Darou Mouhty mën na ko cee def waaye beneen bi ci des it mooy ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu yëngu ci wàllu communication yor ay télé wala ñu yor ay site internet wala ñu yor ay jumtuwaay yoo xam ne mën naa mën naa mën naa jàllale kon ñu ngi noonu bu buntu bu tëju ñu jox koog sëriñ bi incha allahu taala am na benn eh, RNPP neutre boo xam ne mi ngi fi am na yeneen képp am beneen buntuwaay it ba ci sax Telegram am nañ ay ay ay point de division yoo xam ne képp koo xam ne bëgg na caa diviser soo jokkoo ak ñoom rek danañ la jox signal bu am solo kon sëriñ bi ñu ngi sant bu baax mu bàyyi la mhm. ma sa waxtaane mhm. tàmbalee ko mooy atum ñu ko ñu ko nosé muy 2007 ba bisub tey bi mhm. waxtaan yooyu mën na ci bu ko yittewoo bu jokkoo kuréel gi rek danañ ko jox lien boo xam ne dana dem ak dem Telegram bi am nañ groupe WhatsApp yu yaatu yoo xam ne ku bëgg di jot waxtaan wi rek soo jokkoo kuréel gi xam naa bu wootee ci numéro 76 945 37 79 dinañ ko yónnee day day yónnee message ci whatsapp rek mën naa bañ a woote sax 76 945 37 79 ba ci yónnee message ci whatsapp rek mën naa bañ a woote sax ñu yónnee ko lien boo xam ne dana man di jot waxtaan yi fu mu ko bëggee moo xam telegram la moo xam facebook la wala youtube wala groupe whatsapp yooyu xeet yooyu yëpp xanaa kon ni ñu ko waxee ñëpp sant rek sama diya sëñ ko soyit la sant bu baax yàgg nañu ànd liggéey bi di sant it ñi la fi yebal mooy kilifa yi nekk ci télé ba buñ ci buñ ci jiitalee si yebbu samat ak ñoom denk liggéey bi ñëpp ñaan suñu borom kër ga daal fépp fu ñu ko bëgg a yegg fépp fu ngeen bëgg a yeggale yàlla def leen ngeen yeggale wax ba mu yegg fu kawe njort am nañ ci yaakaar bu baax ndax lépp ci liggéeyam sëriñ bi rek la jëm di leen sant bu baax ci jéego yi dañu ñaan yàlla mu koy leen ci am asalaamaaleykum wa rahmatullahi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa jërëjëf Serigne Mouhamed Mbacke ñu ngi lay sant bu a baax nga fàttali ni moo am solo bi nga xam mooy communication ci mbooloo mi nga xam ne mooy amoo assistatu Al Wafa di mbooloo mi nga xam ne ñooy taxawul conférence yu am solo yi nga xam ni mooy amee fii ci jumaa yi Daaru Muxti di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal ñu waaxiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu As-Samadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wooteem bi nga xam ni dafa tënk ci ñetti tomb yi al ilmu naafi' di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm As-Samadiyya TV di seen télévision bu mag bi disponible na ci TNT IPTV Rookie Play Seetaan Média ak ci mbooleem plateforme yi ak réseaux sociaux yi 24 TV daal mooy kër gi leen di woon dëgg njariñ